mbégte la pour man tey euh, vraiment euh, inspection ah monsieur Sakho inspecteur départemental ak monsieur Balde ñu ñëw porter leur choix si si man euh, seetuñu dara dañu xam ne doomu dëkk bi la enseignant la may yëngatu si sport looloo tax ñu ñëw du ci lenn li nga xam ne lu ñuy wut pour ñoom mais dañu gis ne ñun ñuy wuti ñun ñu nekk ci monde sport bi ñun lañ jël pour sargal ñu lii sargal la si man donc tey honneur bu mag la Euh, li man ak suma partenaire bi ñu ñëw tay accompagner xalé yi parce que lolu moy suñu rôle parce que xalé yi di génn tay ci sport scolaire ñun ñom la ñuy jël ci suñu club yi hein ah, mo xam national 2 la national 1 ou bien même Casa Sport parce que je me rappelle bien sport scolaire ah am ñu bëri footballeur yu bëri ou bien athlétisme ñu ci gëna xarañ Sénégal ci IAS yi lañ doon génné mom la ñuy ne sport scolaire donc ñun daf ñu war ñu accompagner ñooñu pour que vraiment li ñuy def ñu réussir mission bi parce que objectif bi la c'est que les yooyu qui sont issus de familles vulnérables ñu mën nous ñu mën leen gis amuñu benn cadre nous les leen mën a gis ci sport euh, sport scolaire lañ leen mën a gis lañ leen mën identifier ñu y leen ay club comme ay génération foot Nous Sadio fu ñu jaar bu ñu tekkee du ñu dimbale inspecteurs yi mais dinañ dimbale communauté bi donc le rek lañ ci lañ ci wut te communauté bi day tax développement am gis nañ tey Sadio Mané def tey Bambali sur le plan euh, international fo wax Bambali ni ñu xam sport donc lolo-ta, ñu ñew accompagner euh commencé nañ ko déjà dimanche ñu ngi woon fi ak euh, xalé yi ndaw yi dañu gis né aussi bu dé ci kaw rek lañuy liggéey mbir mi du dox il faut que ñu wàcc au niveau basique pour que ñu jappalé sport scolaire ñu les école de football yi pour que ñun talent yu ñu soxla ñu mun leen détecter à partir de là-bas bu boba ñun tamit ñu accompagner leen bu ko défé ensemble. dinañ mën a comme ni ma ko waxee dinañ mën a am en tout cas xale xarañ yi nga xam dinañ mën dem monde professionnel sinon même dem ba Europe pour mën a dimbale dëkk bi loolu lañ tax léegi euh, fan yi passé defoon nañ benn jàngat boo xam ne teg benn bu ñuy ne plan stratégique pays bi nga xam 2024 2026 la right to play lépp lu muy dimbale ci doomu aadama ci document boobu lay nekk ci document boobu dugal nañ fa maintenant école yi pour ne non seulement dinañ leen accompagner ci wàllum sport mais dinañ leen accompagner ci wàllum éducation ak gestion environnementale aussi gis nañ nan lay def ci biir euh, dëkk bi. donc loolu moom li nga xam ne jàppale nañ ko et vraiment am na yeneen kii sax yu bees projet yu bees yi nga xam ne dinañ ko dugal fii ba 2026 pour ñu mën a gën a accompagner école bi. parce que ah, euh, jàppale xale yi ñii ñu réussir école ñii réussir sport du suñu ndam mais ndamu dëkk bi la. parce que day tax xale yooyu ñu mën a tekki ñoom aussi dinañ dimbali ñeneen bu ñu ko defee noonu rek dëkk bi day dox. di dox mention spéciale à inspecteur Baldé ak équipe am bi vraiment ak IEF kontaan nañ daal vraiment ak suma partenaire bi incha allah final départemental ak régional bi sànq euh, jox nañ euh, Irama kii bi ñun nañ ko accompagner mais mon frère mon ami aussi bi nga xam ne ñoo nekk district de football bu Ziguinchor ak ligue mooy Fadel Mbaye di premier vice president ligue moom finalam bi aussi dinaa waxtaan ak right to play nu ñuy def ba ñu mën a accompagner ba vraiment daal euh, ñëpp kontaan ci xale yi kontaan parce que loolu mooy suñu mbégte.